affaire bi am mooy les question de euh, les questions comme ni ñu koy waxee gis nañ ko temps yëpp mi ngi euh, voilà moo occupé euh, espace bi boo tourné loolu rek la ñuy wax man pour man lecture bi ma ci am jàngat bi ma ci am mooy euh, dañuy sëlëm nit ñi rek quoi. Hmm. c'est un moyen de distraire les gens parce que comme ni nga ko waxee les besoins primaires sont là les besoins primaires. Hmm. mooy lekk naan solu ja faju jàngi. aujourd'hui il y a des problèmes yu am mm-hmm. il doit prendre le taureau par le cornes mm-hmm. et régler ces problèmes parce que tamit ñoom dañu am lu ñu waxante ak askan bi il est vrai que il faut que ñu am un délai mm-hmm. mais faudrait-il communiquer avec les gens pour dire que la situation elle est là nii la demee ak nii la demee nii la ñu fas yéene def nii la ñu fas yéene def délai yii la ñu ko fas yéene defee mais comme par exemple moo tax les politiques damay wax toujours nii le législateur sénégalais da ko waroon dugal dans les ci loi yi. Mm-hmm. li ñuy wax naan escroquerie politique. Mm-hmm. parce que euh, quand par exemple tu es dans l'opposition nga ñëw taxaw di wax nit ñi ay di leen promettre monts et mm-hmm. di ko jaare fu nekk di wax lu nekk xoola tey li ñu doon wax ci ay affaire affaire fonds politiques yi. les les fonds spéciaux. Euh, du président de la République xam nga loolu. man contre man bokkuma ci ñi nga xam ne dañu ne dañ ko war a dindi. oui parce que dafa am njëriñ. il en a besoin. ils en ont besoin et s'ils ne le font si s'ils par exemple su ñu toppee seen orgueil parce que nit ñi jàpp nañ leen. Mm. tongal nañ leen ci loolu. Mm. parce que ñoo ñoo ko promettroon def ko ci média yëpp. boo mm. ubbi ñu ne riba la on a vu même vu le premier ministre Ousmane Sonko dire que fonds spéciaux yi di ko jëriñoo riba hmm? te moom à côté. chaque euh, périodiquement avec son dans son service mm. ils ont des fonds communs yu ñuy seddoo comme des des, des milliards mm-hmm. yoo xam ne dañ koy seddoo jël ko ñoom te ay liggéeykatu Sénégal mm-hmm. gën ñu nekk liggéeykat gendarme bi gën mm-hmm. gënuñu nekk liggéeykat balayeur bi gën a ñu nekk ku nekk tu as son importance dans la société donc yow nga jàng ñu lay fay grassement nga ñëw en plus de loolu nga am ak terrain yi ñu lay jox te teewul ñoom boo koy seet ci ñi nga xam ni mooy corps de métier doo xam ni bu gën a corrompu ci Sénégal ñoom la amul werante les inspecteurs des jeunes très soyeux malgré tout ce qu'ils ont ils sont dans toute toute sorte de micmac mm. kooku moom c'est c'est ñëpp Sénégal yëpp a ko xam xanaa nga bañ ko wax mm. mais tout le monde la sait donc man jàpp naa ni euh, yu mel noonu taxaw di def ay promesses yu mel noonu moo indil moo leen nar a indil jafe-jafe yi nga xam ne yëpp am nañ ko tey